génn a maa génne. parce que Serigne Touba du Macky Sall rek ak ñàkkug taalibe de ñu ñàkkug taalibe de bari na tey de la feeñ Idrissa Seck nongam ji mu def nongu sa sëñ Moussa Fane naawel mi kilifa ni ñu koy sësee nii war nañoo jël kilifa di ko sës nii ñooxu ko bay air sax amul ci moom Idrissa mi mooy ñàkkug taalibe nii Moustapha. salaamaaleykum na nga def ma bi nag bàyyi xew lii de Touba la ma ma wax li seexu ñaan jël sama audio di ko taqaleeg. ah foto Macky Sall beeg sëñ Mountakha di ko wërale àdduna man ma ni panel bu ma xam dugal naa ko waaw képp kuy appareil boo gis.